soxna xadijatu mbàkke soxna xadijatu mbàkke mi ngi feeñ jamono ci atu 1911 ci dëkk bii nag di ndaam daaru xalimul xabiir ci dëkk boobu nag la feeñee jamono moom soxna xadijatu mbàkke ci atu 1911 di doomu soxna aminta kandi buso ak ku baax ki sëriñ tuuba xaadim rasuul moom soxna xadijatu mbàkke nag bi mu feeñee jamono ci atu 1911 ci dëkk boobu nag di ndaam daaru xalimul xabiir waajuram wa xaadim rasuul soxna xadijatu nag la ko tuddee mu bokk nag ci turandooy soxna xadijatu yi bokkitim nag ci njaboot gi sëriñ tuuba xaadim rasul tudde xadijatu mu ñaareelu doomu seexul xaadim itim bu tudd xadijatu ndax sëriñ tuuba xaadim rasul amoon na doom ju tudd xadijatu xadijatu moomu nag moo bokk ak cheikh mamadul basir mbàkke waajur wu jigéen ñaareelu xadijatum seexul xaadim nag mooy xadijatu mii nag ñuy waxtaane muy bintu soxna aminta kandi buso ak seexul xaadim moom soxna xadijatu mbàkke nag am na nag ñu bokkal waajur wu jigéen ñu ràññee ci magam ja nag soxna maymunatu mbàkke bintu soxna aminta kandi buso bintu seexul xaadim ci atum 1908 nag la feeñ jamono nag ci dëkk boobu nag di ca yéen joloof ñetteelu doomu soxna am Kandi Bousso bi ak kii di Serigne Touba Cheikhoul Khadim mooy Cheikh Abdou Khadir Mbacke ibnu Serigne Touba Khadim Rasoul mu feeñ jamono ci atum 1914 ci dëkk boobu nag di ndaam daaru Halimul Khabir ñaareelu doomu soxna Aminta Kandi Bousso bi ak ku baax ki Serigne Touba Khadim Rasoul mooy soxna xadi Khadijatu Mbacke mi feeñ jamono ci atum 1911 ñaari bant yooyu nag la bokkal waajur wu jigéen ak waajur wu góor muy soxna Maymunatu Mbacke bintu Cheikhoul Khadim ak Cheikh Abdou Khadir Mbacke ibnu sëriñ Tuuba xaadim rasuul ñetti doomi soxna Aminta Kandi Bousso yooyu ak seexul xadim soo delloo ci mbindum sëriñ Omar Fall doomu sëriñ Abo Bakri Fall ñu gën koo xam ci sëriñ Pir bind na nag benn téere dajale ci nag mbooleem njabootuk seexul xadim gi ak seeni waajur soo delloo nag ci xasida googu fa muy tudde nag njabootu soxna Aminta Kandi Bousso ga ma ngi cay lim nag soxna Maymunatu Mbàkke soxna Xadijatu Mbàkke mi ak di Cheikh Abdou Xaadir Mbàkke di ñu xamal ne itam na soxna Aminta Kandi Bousso ñetti bant yi nag am ak seexul xadim ñu teewlu téere bi sëriñ Omar Fall bind moom sëriñ sëriñ Aboo Bakari Fall ñu gën koo xam ci sëriñ Pir ci njabootuk seexul xadiim gi fa muy limee nag doomu soxna Aminta Kandi Bousso yi ak seexul xadiim di wax ñaata lañ ak kanak kan lañu ñu teewlu ko li ummina minal busubi aminatu maymunatun min kulli aybin amina xadijatun laha wa abdul qadiri min si balaaxatil fasihil maahiri bi matee dal alxuraanul karim moom soxna xadijatu mbàkke waajurum wa xaadim rasul moo ko dalal alxuraanul karim ci njaareem ginnaaw bi nag la ko jébbal nijaayam sëriñ mbàkke kandi Bousso ci loxoy nijaayam nag sëriñ mbàkke kandi Bousso nag la nekk nekk nag ba mokkal alxuraanul karim ginnaaw bu mu jàngee alxuraanul karim ba mokkal ko ci loxoy nijaayam sëriñ mbàkke bu buso laataa nijaayam sëriñ mbàkke bu buso nag di fab soxna xadijatu mbàkke ak kaamilu alxuraanam nag di ko indil waajuram seexul xadim ci njaareem jaarale da ko nag ci sëriñ ndaam abdourahmaan loo ngir nag mu saytu nag njàngum soxna xadi ndax seexul xadim kat moo ko sàkk woon ci moom ginnaaw sëriñ ndaam abdourahmaan loo nag lañ fab kaamilam nag ak soxna xadi nag yit seexul xadim seexul xadim nag santoon na soxna xadijatu mbàkke gërëmaale nag kii di sëriñ mbàkke kandi buso ci doomam jooju nag mokkale alxuraan nag ciy loxoom ginnaaw bi nag la ko sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim jébbal sëriñ Mbàkke Buso ci Gédé ngir nag mu jàngal ko nag lii di xam-xam ci loxoy sëriñ Mbàkke Buso nag la jànge xam-xam nag ba géeju lool moom soxna Xadijatu Mbàkke ginnaaw bu ko nijaayam sëriñ Mbàkke Kandi Buso jàngalee alxuraanul karim ba mu bind kaamil bi mu boole ko kaamil bi yit ko baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ci njaareem sëriñ Ceerno Buso moom sëriñ Mulaay Buso moom sëriñ Mbàkke Buso wax na ne waajuram sëriñ Mulaay Buso moo ko nettali ne bi sëriñ Mbàkke Kandi Buso nag indee soxna Xadija Xadijatu Mbàkke di wan nag ab kaamilam bu mbind nag seexul xaddiim seexul xaddiim nag moom sëriñ Moulaye Bousso la waxoon ne na jël nag soxna Xadijatu Mbàkke mii nag yit ko sëriñ Mbàkke Bousso waajuram ngir nag mu jàngal ko xam-xam ginnaaw bi nag la sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag di xamal nag kii di sëriñ mu Moulaye Bousso di ko wax ne nag bàyyil sax nijaayam sëriñ Mbàkke Kandi Bousso nag yóbbu ko nag gedee jébbal ko nag nijaayam sëriñ Mbàkke Bousso sëriñ Ceerno Bousso nag moom sëriñ Moulaye Bousso nag mi ngi wax ne sëriñ Moulaye Bousso nag nee na ko nag loolu nag moom moo tee nag indiwul soxna Xadijatu ci waajuram mbàkke kandi buso nag jëlee njaareem nag ci ndigalul ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul indi ko gedde nag ci loxoy sëriñ ko nee na nga jàngal ko nag lii di xam-xam nag te yar ko te saa bu matee dem kër nag nga jébbal ko nag sëriñ asan buso sa doom waaye nag sëriñ tubaa xaadim rasul mi ngi ma ciy tegal ne lii mu la wax nag bu ko xadijatu mbàkke yëg sëriñ asan buso sa moom itam nag bu mu ko yëg lu dut bisub keroog ba nga leen di boole loolu moo waral nag soxna xadijatu mbàkke nag wéy nag gedde nag di jàng nag xam-xam nag ci loxoy sëriñ mbàkke buso ba mata dem kër nag sëriñ mbàkke Mbàkke Buso nag jébbal ko nag kii di doomam nag sëriñ Asan Buso ci ndigal nag lu fi sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul bàyyi woon mu nekk nag ci loxoy sëriñ Asan Buso di liggéeyal suñu boroom nag ci sëriñ Asan Buso ba tax na mook sëriñ Asan Buso nag am nañ ak njaboot moom soxna Xadijatu Mbàkke mi bintu Seexul Xadiim ñu mën caa ràññee ku ñuy wax soxna Faati Buso bintu soxna Xadijatu Mbàkke bintu sëriñ Asan Buso ak sëriñ Ahmadu Buso ibnu soxna Xadijatu Mbàkke ibnu sëriñ Asan Buso ak soxna Ayda Buso bintu soxna Xadijatu Mbàkke bintu sëriñ Asan Buso soxna Xadijatu Mbàkke nag am ak sëriñ Assane Bousso ci loxoy sëriñ Assane Bousso boobu sax la génnee àdduna ci atum waaye laataa muy génn àdduna nag ci loxoy sëriñ Assane Bousso sëriñ Assane Bousso nag mi ngi ko yóbbu woon nag ci tool yi di xadaa di suuf soo xam ne nii nag sëriñ Mbàkke Bousso nag moo ko goroon féetale woon fa doomam ji nag di sëriñ Assane Bousso xadaa nag mi ngi ci diggante Touba Belal ak Touba soo jógee Touba nag daa dem xadaa fukki kilomètre ak benn ngay daw soo jógee woon Belal nag di ñëw xadaa fukki kilomètre ngay daw ci diggante Touba Belal nag ak nag la Xadijatu Mbàkke nekkoon ci loxoy sëriñ Xasan Buso ci tool yooyu fa sëriñ Mbàkke Buso amoon nag te dëloon fa doom ji nag di sëriñ Xasan Buso mu nekk itim nag ku kiimaane moom soxna Xadijatu Mbàkke ku bëgg sëriñ Xasan Buso ku ko yemaliwul woon ak kenn nag ndax ndigal nag lu fi waajuram bàyyi woon ku ñuy wax sëriñ Xasan Jóob bokk ci ñi nga xam ne nii sëriñ Xasan Buso moo leen yar mu nekkoon ak soxna Xadijatu Mbàkke itim nag ci kër gi sëriñ Xasan Jóob na la guddeeg bëccëg ku fonkoon itim alxuraanul karim la ku ko daa jàng itim nag Buso yoroon ñaare bu fi sëriñ Asan Buso nekkul moom moo daa bindal nag ñiy jàng ci daara ji ba tax na itim nag ku rafetoon mbind la ku sëriñ Asan Buso itim nawoon la ndax daa daana ko wuutu ci daara ji lii moom sëriñ Asan Jóob bokk itim ci ñi nga xam ne nii sëriñ Asan Buso moo leen yaroon ci daara ji seede na ne soxna Xadijatu Mbàkke ku daa def lii la ba tey it sëriñ Asan la bu Kaolack bokkoon itim ci ñi nga xam ne nii sëriñ Asan bu itim moo leen tarbiya ñu nekkoon ak soxna Xadijatu itim ci kër gi seede na ne itim soxna Xadijatu itim liggéeyub jigéen ci biir kër moo ko daa defal woon ku fonkoon boppam la ku daa yar la di joxe ba tax na itam nit daawul ñëw diis ko soxlaam te joxu la ko ndax jikkoy waajuram moo nekk ci moom di seexul xaddiim mu nekk it ku taaru moom soxna xadi jatu mbàkke ku bëgg itam sëriñ asan buso ku fonk itam njabootuk sëriñ asan buso gi ba tax na itam nag doom ji sëriñ asan buso njëkk a gis soxna xadi jatu mbàkke mi itam moo ko indil muy soxna faati buso bari na ñoo xam ne itam nag yaroo nañ ci ay loxoom moom soxna xadi jatu mbàkke ñu mën caa ràññe ku ñu wax soxna buso sànqe moo meññ nag sëriñ tafsir ràññee ku ñuy wax soxna Mariama Bousso ibnu sëriñ Ibrahima Bousso man caa ràññee itam ku ñuy wax soxna Khady Ndiaye man caa ràññee ku ñuy wax soxna Assu Diop man caa ràññee ku ñuy wax soxna Bousso Mbegere moom sëriñ Mahmoud Mbegere man caa ràññee ku ñuy wax soxna Mbarka Diba man caa ràññee ku ñuy wax soxna Aminta Sànqe man caa ràññee ku ñuy wax soxna Khady Bousso moom sëriñ Aline Bousso moom sëriñ Bousso be man caa ràññee ku ñuy wax soxna Khady Kebe di doomu sëriñ Ousmane Kebe mu mag ak maneen soxna Khady Kebe moom sëriñ Ousmane Kebe mu ndaw ak ku ñuy wax soxna Mariama Jigal ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne nii nag ci loxoy soxna Khady Jatu Mbàkke Mbàkke nag lañ yaroo dem defar leen mu nekk nag ci loxoy sëriñ Asan Buso nag ba ni mu génnee àdduna moom soxna Xadijatu Mbàkke soo delloo ci marché bi sëriñ Musaa Ka bind te leel ko nag demuk sëriñ Mbàkke Buso am na nag fu Seex Musaa Ka nag di leerale diggante Seexul Xadim ak sëriñ Mbàkke Buso mu tënk ko nag ci wenn way ca way wa nag boo ci delloo Seex Musaa ma ngay wax ne sëriñ Mbàkke Buso da ko Seexul Xadim fonkoon la ba tax na Seexul Xadim jur na jox ko jur na mu jox ko yor na jox ko yar na jox ko ñu teewlu ko yar na jox ko yor na jox ko jur na mu jox ko fat na doomam nag lu tax ñu indil leen ko nag ci marché yëpp sëriñ Mbàkke Buso bi ci waxtaan wi nag ñu defal soxna Xadijatu Mbàkke Seex Musaa Ka mi ngi wax ne sëriñ Mbàkke Buso Seexul Xadiim jur na jox ko jur na mu jox ko yor na jox ko yar na jox ko jur na mu jox ko mooy soxna Muuminatu Mbàkke bintu Seexul Xadiim Seexul Xadiim mooy waajuram te sëriñ Mbàkke Buso la ko jébbaloon kon jur na jox ko jur na mu jox ko mooy sëriñ Asan Buso doomu sëriñ Mbàkke Buso la te sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim joxoon na ko soxna Xadijatu Mbàkke soxna Xadijatu Mbàkke doomu Seexul Xadiim la sëriñ Mbàkke Buso jur na Seexul Xadiim jox ko ko sëriñ Moussa Ka nag mi ngi wax ne nag yar na jox ko ndax soxna Absa Aydara soxna Aminta Kandi Bousso nag moo ko yoroon ginnaaw bu mu matee dem kër nag la ko seexul xaddiim nag jébbal sëriñ Mbàkke Bousso yor na jox ko waajuru sëriñ Abdul Baaxeer Bousso seexul xaddiim nag moo ko dëkkoo woon moo tax nag seex Moussa Ka nag tënk ko ci wenn way di wax ne jur na jox ko jur na mu jox ko yor na jox ko yar na jox ko mu nekk nag ku kiimaane moom soxna Xadijatu Mbàkke kiimaane googu mu kiimaane woon nag tax na ay magam ay rakkamitim nag fonk ko ba ay magam ak i rakkam nag tudde nañ ko doom ñu mën cee ràññee magam cheikh mamadul moustapha mbàkke ku taqoo woon nag soxna xadijatu mbàkke la ba tax na soxna xadijatu mbàkke sax ci loxoy cheikh mamadul moustapha mbàkke la génn àdduna ci atum 1945 ginnaaw bu mu yëgee ne cheikh mamadul moustapha mbàkke dafa ko seeti ci seeti nag gum doon seeti magam nag di xaritam te seeti googu nag la génnee àdduna loolu na cheikh mamadul moustapha tudde woon na ko doom ndax soxna xadijatu mbàkke faatma mi ngi fi woon cheikh mamadul faadal mbàkke ibnu sëriñ tuubaa xaadim rasuul ku bëggoon rakkam jooju la nag di soxna xadijatu mbàkke ba tax na cheikh mamadul faadal mbàkke tudde na ko doom ginnaaw bu mu génnee àdduna itam nag soxna xadijatu mbàkke cheikh mamadul faadal mbàkke moo ko jullee moo ko jébbal boroomam cheikh mouhamadou lamin baara mbàkke ibnu sëriñ tubaa xaadim rasul moom itam nag na rakkam jooju nag doom ku bëggoon soxna xadijatu mbàkke la cheikh mamadul basir mbàkke ibnu sëriñ tubaa xaadim rasul ku fonkoon rakkam jooju la nag di soxna xadijatu mbàkke ba tax na itam kii cheikh mamadul basir tudde na ko doom sëriñ tubaa cheikh abdoulahad mbàkke ku bëggoon magam jooju la nag di soxna xadijatu mbàkke ba tax na itim nag tudde na ko doom cheikh abdou xaadir mbàkke ñoo bokk benn waajuru góor ak waajur wu jigéen ku bëggoon magam jooju la nag di soxna xadijatu mbàkke ba tax na cheikh abdou xaadir mbàkke tudde na ko doom moom soxna xadijatu mbàkke nag ku wëlërante woon ak rakkam ji la nag di sëriñ soye bu mbàkke ba tax na guddi gim génnee àdduna ci guddi googu itam nag dem na seeti sëriñ soye bu mbàkke waxtaan ak moom saafonteeg moom ginnaaw cheikh mamadul moustapha mbàkke sëriñ soye bu mbàkke nag la mujjee gis nag ci doomu seexul xadimi ndax guddi gim génnee àdduna dem na ci moom waxtaan ak moom mook jaxasoo woon nañ lool lool lool kiri sëriñ Souhaïbou Mbàkke tudde na ko doom ndax magam la xaritam la Cheikh Mourtada Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ku fonkoon magam jooju la na di soxna Xadijatu Mbàkke ba tax na itam nag tudde na ko doom sëti ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ñu ci takkoo takko itam nag tudde nañ seen bàjjan boobu doom Cheikh si toppoon Xaadim Rasuul itam ñu ci takkoo takko itam nag tudde nañ nag seen doomu sëriñ boobu doom ñu man cee ràññee sëriñ Abdou na bàjjanam boobu doom di soxna Xadijatu Mbàkke sëriñ Fàllu Mbàkke moom sëriñ Souhaïbou tudde na soxna xadijatu mbàkke sëriñ mustapha mbàkke abdu xaadir tudd na bàjjanam doom itam di soxna xadijatu mbàkke sëriñ cheikh mbàkke moom sëriñ abdu xaadir mbàkke tuddewul bàjjanam boobu doom waaye ci taalibey sëriñ abdu xaadir mbàkke ku am doom muy jigéen sëriñ cheikh mbàkke moom sëriñ abdu xaadir mbàkke su lay tudd bàjjanam boobu nag di soxna xadijatu mbàkke nag la lay tudde ba tax na nag bare na ci taalibey sëriñ abdu xaadir mbàkke yi ñu ci tudde soxna xadijatu mbàkke te ginnaaw yàlla sëriñ cheikh mbàkke la moom sëriñ abdu xaadir mbàkke sëriñ moodu jee mbàkke tudde na soxna xadijatu mbàkke doom muy soxna xadi Xadijatu Mbàkke moom meññ sëriñ Cheikh Saalihu Mbàkke moom sëriñ Tuuba Cheikh Saalihu Mbàkke moom Xaadim Rasuul sëriñ Njoogu Mbàkke tudde na soxna Xadijatu Mbàkke doom ku fonkoon soxna Xadijatu Mbàkke la ndax wëla réew soxna si la woon moo soxna si itam nag jaar nañ fu bare bare bare bari moom sëriñ Njoogu Mbàkke loolu itam tax na tudde na ñetti yoon doom kii di soxna Xadijatu Mbàkke sëriñ Hamdi moom soxna May tudde na waajuram wowu doom sëriñ Moor Mbàkke moom sëriñ Cheikh May tudde na soxna Xadijatu Mbàkke doom sëriñ Ahmadu Asan Buso di doomu sëriñ Asan Buso Ibrahima Boussa Baaxeer tudde na soxna Xadijatu Mbàkke doom Serigne Moustapha May moom soxna May Munatu Mbàkke moom Xaadim Rasuul tudde na waajuram woowu doom di soxna Xadijatu Mbàkke Serigne Moodu Faati Xari Mbàkke tudde na soxna Xadijatu Mbàkke doom Serigne Ndaam Atta Mbàkke moom Serigne Ibrahima Mbàkke moom Xaadim Rasuul tudde na bàjjanam boobu doom di soxna Xadijatu Mbàkke Serigne Mansuur Mbàkke tudde na soxna Xadijatu Mbàkke doom Serigne Baara Belal tudde na soxna Xadijatu Mbàkke doom Serigne Asan Jóob bokk itam ci mag ñi toppoon Serigne Asan Buso tudde na soxna Xadijatu Mbàkke doom Serigne Mahmoud Mbàkke Touré tudde na soxna Xadijatu Mbàkke doom sëriñ Muudu Maamun Buso imaam tudde na soxna Xadijatu Mbàkke doom sëriñ Cheikh Njoogu Mbàkke moom sëriñ Njoogu Mbàkke tudde na soxna Xadijatu Mbàkke doom sëriñ Gede Mbàkke imaam tudde na soxna Xadijatu Mbàkke doom sëriñ Fàllu Buso moom sëriñ Muudu Buso itam tudde na soxna Xadijatu Mbàkke doom sëriñ Cheikh Faa Jama tudde na soxna Xadijatu Mbàkke doom sëriñ Cheikh May tudde na soxna Xadijatu Mbàkke doom sëriñ Baaxeer Buso moom sëriñ Mbàkke Buso itam tudde na soxna Xadijatu Mbàkke doom sëriñ Jiili Buso mbir kilaan itam tudde na soxna Xadijatu Mbàkke doom sëriñ Haamidu Buso mbir kilaan itam tudde na soxna soxna xadda jatu mbàkke doom sëriñ mbàkke ngiraan tudd na soxna xadda jatu mbàkke doom sëriñ moor anta njaay tudd na soxna xadda jatu mbàkke doom sëriñ saam faal tudd na soxna xadda jatu mbàkke doom sëriñ sërif géy di sëtub sëriñ mahmoud mbegere tudd na soxna xadda jatu mbàkke doom sëriñ muudu may faal tudd na soxna xadda jatu mbàkke doom sëriñ hamdi buso tudd na soxna xadda jatu mbàkke doom sëriñ daam buso mbar tudd na soxna xadda jatu mbàkke doom sëriñ abdoulaye mbàkke ibra far yitim tudd na soxna xadda jatu mbàkke doom sëriñ hamsatu gay tudd na soxna xadda jatu mbàkke doom sëriñ habdu faa jama tudd na soxna xadda jatu Mbàkke doom sëriñ Asan Buso mi dëkkoo woon ak soxna Xadijatu Mbàkke tudd na soxna Xadijatu Mbàkke doom sëriñ Masàmba Kande Buso tudd na soxna Xadijatu Mbàkke doom sëriñ Buso moom sëriñ Masàmba Kande Buso tudd na soxna Xadijatu Mbàkke doom doom ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu tudd soxna Xadijatu Mbàkke doom xam naa ku bëgg lim kuñ tudd soxna Xadijatu Mbàkke daa juum ci gàttal daal bari na soxna Xadijatu Mbàkke yu nekk ci yoonu murit ñu ci ëpp moom lañ ko kañ ko tudde soxna xadijatu mbàkke mii lañ ko tudde ndax seexul xaddiim nag amoon na ñaari soxna xadijatu mu wéy nag des nag ci loxoy sëriñ asan buso ba nim génnee àdduna ci atum 1945 soo delloo ci marché bi nga xam ne ni sëtam di sëriñ hamidun mbàkke moom sëriñ hamdi mbàkke moom sëriñ moodu maamun mbàkke moom maam cheikh anta mbàkke ci marché bi mu defal soxna xadijatu mbàkke mag ñuy wax nag jikkoy soxna xadijatu mbàkke melokaanu soxna xadijatu mbàkke taarub soxna xadijatu mbàkke jébbal guñ ko jébbal sëriñ hasan buso bi matee dem kër ñetti bant yim am ak sëriñ hasan buso jigéen ñi nag ni ñu war a roya doomu seexul xaddiim boobu ci melokaan wum amoon tënk bu am solo daal la sëriñ Hamidun Mbàkke moom sëriñ Hamdi Mbàkke moom sëriñ Muudu Maamun moom maam Cheikh Mbàkke nag def nag ci maamam ko lu fàtte am am doon may fàtte soxna xadi te xam ne ndeem làqu nay bët addunaa sa xadi ndeem dem na nag te ku dee faa dund yi dana dem danaa fi wax luy saxal kuy faatu fil xalat yi danaa mu am ndax yow nga aw fa baraw say kem ilal abadi daaril alim la ganee duniyaa atum la sa demel ne ab jant nag buy diggu boori ñi di nee keroog ba mu matee dal jàng rek dafa dal ni nijaayeenam ñoo ko jàngal ñooy sérifié de ñoo am sariyan te am xam-xam te maandu te jub te am aqiqa xalifal faydi wal madadi njaareem la doon jànge quran foofa it la yaroo seex bamba moo ko yaral boppam bi tarkide di sëñ mbàkke tànnee ko jàngal alquran la ñu wax mu daal di wattoo fa sëñ daam abdu fi rasadi wax nañ ne bind na kaamil woo rafet jébbal ko seex bamba muy bëgg lool ci soxna xadi seex bamba jox ko nijaayam seexu mbàkke buso ba ka nekkoon muftiyal baladi mu jàng xam-xam am sam cër ñu jox ko sëriñ asan xujub ka te sàmmoo sàmm laay wax xaali man warexan borom tasawuf ja mooy siblul minal asadi foofee la nekk ba am nag soxna faati buso ak seexu ahmadu min dul fàtte fii ba géde ak soxna ayda mu baax mi yàlla na yàlla guddal fanam ñu dollu ko ak wér faw fil jasadi ma wax ci soxna xadee jikkoom yow mi duray déglul melam yi ma lay wax nag mu mel ni midi doon doomi seex bàmba lim rëy rëy taxul ba mu rëy moom daa woyof mokk néew dër mucc ci matadi daa yaatu am yitte am yëpp aajo ci ak njubadi ku neex a nekkal la woon santee ko soowoo moo soreeg yëgadi xol baa nga set ne welas biiram de mel ni kawam ab tab la woo nit bu tab gay sax ngelaw lu riddi moom daana jullee ko jàngat def liggéey ya ko war te léegi itti yi mooy làmboo musique comédie te bis bu nekk da ciy ngi joo defar ëllëgam te léegi internet ak appareil ak crédit jigéen ñi roy leen ko moo gën roy ci waa Amérique xool leen ci soxna su baax si jël seen i seen ànd bii nag bu leen koy wàcc ndax ku ko def du jëm kanam te du am aw tagg fañ ko leen ci a amoon la booy muutoo mu far la jubee jëf am na ay mbooloo say doye moom ay jëfam du fi jóg ay wëllëreem du fi jóg mukkit taayu turandoom day yokk fi la adadi fanweeri at yu tegaaj nag ñett moom la fi def dem wuy ji yàlla mi maamam jaara fil amadi boo yàlla yàlla tawal roxam ga niiri ngërëm yu dul sëwét di ko dollig yiw ilal abadi njaboot ga jiitu mu tàbbal leen ci may ñi fi des ay fan yu gudd ki wér ñuy dund fi raxadi fanweeri way yu tegaaj nag ñett laa fi wali si ay walaf muy limu dundam nga tey tëjandi marché boobu nag la ko sëriñ Hamidun Mbàkke defal di ab sëtam bàyyi Lamine Jóobitim di bind kat ku ñu naw nag ci ëttub seexul xaddiim bi rawatina nag ci kër gii nag di kër Cheikh Abdou Xaadir Mbàkke defal na mag ñu baree baree baree baree bari nag ay taalif ak i marsiya soxna Xadijatu Mbàkke mi itam bokk na nag ci ñenn ñim defal marsiya ba tax na itam nag tënk na ci nag lu baree baree baree baree baree bari ci dunduk soxna Xadijatu Mbàkke soxna Xadijatu Mbàkke nag guddul aw fan fanweeri at ñett rek la dund dëppoog nag muy dunduk maamam soxna Jaaratullaahi mu bokk nag ci doomu seexul xaddiim yi nga xam ne nii magam yi ak rakkam yépp amoon nañ ci moom yaakaar ndax melokaan gu mu meloon daawul xëy ba ngoon te jàngul alxuraanul karim daaray sëriñ asan buso jooju nga xam ne nii sëriñ asan buso lañ ko jébbaloon ngir mu liggéeyal fa suñ borom ci wàllu kër saabu sëriñ asan buso wuutee woon daara ja moom moo fay jàngale ba tax na itam nag bari nañu baree baree baree baree bari daana leen bindal ci seenu àlliwa mu nekk itam nag ku mënoon a bind moom doomu seexul xaddiim gi ku fonkoon itam nag sëriñ asan buso ba tax na lépp lu ko waroon ci biir kër moo ko daa defal boppam woon na ay saa bàjjan nag yum yar mu wéy nag topp nag ci ginnaaw magam cheikh mamadul moustapha mbàkke di ko xoole nag waajuram wa xaadim rasuul ba tax na itam nag musta bëgg nag lenn nag lu metti ay magam rawatina ay rakkam ginnaaw bu mu déggee ne nag cheikh mamadul moustapha mbàkke nag dafa wéradi la soloonu dàllam nag di def nag saa su ne wala guddi gu jot nag mu bàyyi ko gede wala ci tool yii nag ñu nekkoon nag di xadaa di seet si nag magam ja nag cheikh mamadul moustapha mbàkke ci seet si googee nag mu doon seet si magam nag ci la génn àdduna ndax suñ delloo ci kàddu yi nga xam ne ni soxna Mbacke bintu Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke di ki nga xam ne nii moom la ko Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke fayee mi ngi ñuy nettali ne bisub keroog bi soxna Xadijatu Mbacke ñëwee nag di seet si magam ja Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke moom soxna Xadijatu Mbacke bintu Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke moom la Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke woolu di ko wax ne Xadijatu dama bëgg na nga toggal sa bàjjan ab reer reer boobu nag soxna Xadijatu mbakke mi ngi wax ne ginnaaw bu mu ko toggalee bàjjanam soxna Xadijatu Mbacke bintu Seexul Xadim ba noppi soxna Xadijatu Mbacke jotu caa reer ndax moom bi reer ba wala ba muy togg reer Xadijatu Mbàkke bàyyikoo na ci Cheikh Muudu Moustapha Mbàkke ñëw fekk ko ca waañ wa muy togge reer di ko wax ne Xadijatu dama bëggoon ñu ànd nag ci sa baay Sëriñ Soyebu soxna Xadijatu Mbàkke bintu Cheikh Muudu Moustapha di ko wax ne bàjjen sama waajur Cheikh Muudu Moustapha nee na reer bii may togg naa la ko toggal te reer bi may togg pareegul soxna Xadijatu Mbàkke bintu Cheikhul Xadim di xamal turandoom woow di soxna Xadijatu Mbàkke bintu Cheikh Muudu Moustapha toggal reer bi ma dem seeti sa baay Soyebu te ñëw ginnaaw bu ko fa soxna Xadijatu Mbàkke bintu Cheikhul Xadim bàyyee moom muy togg reer ba mu dem seeti waajuram Sëriñ Soyebu Mbàkke Mbàkke ginnaaw bu mu jógee nag ci sëriñ Sohaybu bu Mbàkke ba pare dellusiwaat na nag ci moom di ko wax ne Xadijatu dangaa togg ba pare mu di ko wax ne pareeguma mu ne ko kon de maa ngi la fii bàyyi nag dem ci Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke ngir waxtaan moom soxna Xadijatu Mbàkke bintu Cheikh Mamadou Moustapha mi ngi wax ne ginnaaw nag bu reer bi pare ñëw na nag ci soxna Xadijatu Mbàkke di ko wax ne bàjjan reer bi pare na mu di ko wax ne nag ginnaaw reeroon naa nag ci reerub kër kon bi nag ba suba naa ba pare mu nag ba ko fa nag mook Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke ñuy waxtaan ba ca boori fajar la soxna Xadijatu Mbàkke nag génnee àdduna nag cheikh mamadul moustapha mbàkke soxna xadijatu mbàkke bintu cheikh mamadul moustapha mi ngi wax ne cheikh mamadul moustapha nag moo jëg wootee waxitim nag ne nañ mbàkke ba suba ci bayti fa lañ ko fanaanal ba suba di wax ne koo xam ne na xaadim rasuul na ñëw nag gunge soxna xadijatu mbàkke mi sàkku itim nag ci rakkam cheikh mamadul faadal mbàkke ngir nag mu jullee soxna xadijatu mbàkke ñu jébbal ko boroomam histoire bu yaatoo yaatu daal bëccëgu keroog la ñu soxna xadijatu mbàkke bintu cheikh mamadul moustapha mbàkke di nettali fi ñu jaar bëccëgu keroog keroog mook Cheikh Modou Moustapha ak moom turandoom woowu ñu teewlu ko. mu toogoon di waxtaan ak moom daal. fële naa leen sotti ko xasal bi ñu noonu fa def daal di dem ci saa yi. noonu donc mën a dem daal weer balaa ko dee noonu lañ ko fa takke ba suba bu a du dara. wopp wopp dara dara dara dara ñu ngi lay toog. ñoo a mu ñëwee dem ci suñ soybu bi may togg reer bi di noppilu dikk na ma naan ànd ma ne ko man de bàjjan maa ngi di togg reer te yow laay toggal reer sëñ bi dafa naa la toggal beneen reer bu bokk te bi nga toggalo waaw kon de booy woo toog nga wut ko ma àndal bu génnee nag ka ma àndal dem ko sëñ soybu laa xamatut laa fàtt maa ko soxna Mariam déedéet soxna Mariam moo ma soxna Mariam fi dafa naanam mbir sax bu ñu ñëwee ba bay jël fa moom ñoom maa moom tubu ma fa nii suma ko soxna Mariam man nag dem naa fa bu ñu dikkee ba boobu noppal dem naa fa moom sañu dara laa xamatul boobu xamatuma dara man foofu yeneen dama seet soxna ma di muy foofu la ko seet moom kay moom doom ma demoon ci Cheikh Moustapha kii amoon amoon tabare defe naa laa ni man daal defe naa moom laa na doon dem na Cheikh Moustapha amoon tabare ndufa yaakaar naa ne moom laa na doon dem ci Cheikh Moustapha daal ndax boobu nit ñëpp tëdd nañu boobu moo ko doom ma fa ne ci man mu ne ko gunge ma ma dem pëlis ba te ñëw réer moom fa di koy ba nga dee ci ko suur eh, lii daal moom wax naa ko moom denca weeru suur na Cheikh Moustapha dem toog fa nag di waxtaan te ñëw rek ba fajar di jot li ñu naan fajar rek la def feebaru feebaru dara la bu néew dara ñu koy metti néew dara teel jëlewul di ko def noonu dong mën a toog di waxtaan ba léegi di waxtaan ak Cheikh Moustapha ba léegi Cheikh Moustapha sax a jóg woote ñu mu xamee ne dem na ba noppi la jóg taxaw woote maanaam ñu fa ne woon damaa fàtte ni waaye ba noonu ndax fekk na ñëpp tël baara si daal laaj xam bu baax a baax waaye ñu ko ñetteel la xamal suma bi te ñu ko ñetteel sax ka fañ koy bu lañ jóge na fekk na kër géer tëdd xam naa moom it dana yéemu lool ay yéemu na lool boo fa jóge boo ko darani ɗum ko mi toɓi de kono mun kadi tagano opérére man ko wawateno ɗo balli mune a eji ko woto waɗa ko guddi tiginalde horono berembe koma rem tekkol ɓiɗo mo allah noon fekkno mi doka kono cheikh mousfa lol dehno a wawa fekkno mi doka ton mom lol ton mom lo sohlade ko toɓi dikk rek tirum yum tawanan toɓi ñowru rek gudde gudde yaɗum fof rek tok yere boga tama dikkude jikko tokto mom rek koye wongo ko yendu ko gudde dani ko koye waxtane ba fajar jot ko soñ soy mo dani ñaare bu jullee gee da naan ah bi seet la seet seen sooy ba tey bu dee waxtaan moom ba mu guddi suuf si mu. sooy bi de fonk na ko lool suñu laajte mi ngi naan magam moom la fi tuddee. daanaka doon sa bataay ba tey ñoom bu mu jëm man rek la daan da daan da kenn daanaka reer ba rek moo tax mu bàyyi la. reer ba doom na kenn am dem ci kër ga tey. ma ne ko maa ngi lay toggal reer mu ne ah da ngaa toog wala ma ne ko toggoon naa reer kat waaye léegi la ma seet ma saa woon naa la toggal beneen reer ma ma ma du mu ni moom laay togg kon nag ñu ne ma maa ngi ko ci ko mu ne ma ak ko mu toggal tey ma dem ci ñoom maa ngi dem ko teg saa bu la fàtte waaye maa mënta bàyyi daal defe naa la woon ndax moom laa na doon jóge jële keneen dina ko leen man képp ree su booba ree bi sooy man kenn bokk ci kaw gëm woon ama dem ko di kenn kiimaan kiimaan la lool def na ko yëfi kiimaan lool toog di waxtaan ak rek booy wax nga bëgg lépp dem tëdd woon may metti di ko dara Cheikh Moustapha moom lay waxtaan ak moom bañu nodd rek non bu bëgg julli mu day def ñu ñëwee maa ko fekk mu tëdd nii sangoo mu la ngeen koy ca wax leneen lu dul lool yi man mii maa ko ci mën a wax. sama tubaab moo ko waajal fii dara ko doon. loolu nañ ko bàyyi ba wut ci nañ ko ba yore ba wooye waa kër yeeg ñëpp kay ñu war a dem ñëpp. ñu dikk mu ñu doon ko jéem a ñëpp ko ñëw kay danañ danañ woon ñëpp nag bu kenn des. ba mu koy def nag ñoom ñaar rek fa ne. Cheikh Moussa mi ngi woon ci tawat ji de. waaw boobu booba tawat ji dafa doon seet si. Cheikh Moussa boobu nag tawat waaye tawat ji amuloon solo moom dafa mel ne dafa faj rek. yëpp ko tawat ji mu tëddoon. kon Cheikh Moussa moom jot a tawat lu yàgg la xam nga. déedéet tawat lu yàlla kay sama sama kooku demam daal di soriwul. daa toog di waxtaan ak ñun nii ba neexu ma def te surtout man maa ko gënoon a toog. sama baaj benn weer nag dafa faf ndax man doom nga ko doon toog ma di ko yóbbu. kooku nag baalu si la nii mooy bëgg nañ ko. baalu di gën a bëgg bi bu ndaw rek xanaa bàyyi ma dara. moom ñaa ngi faa kenn dafa fa daawut toog moom dong moo daa dikk toog. xam nga moom du ne kenn du ko def. mooy ñëw toog rek moom neex ko mu ne. baalu si la nii mooy bëgg nañ ko. loolu si njëriñ li jooju fi nekk. nit ku nekk ndaw di toog si moom rek ku mu toog moom nga toog kooku moom du bës tànk yi bu nataaru nga gis ma ko fenn foofu biir biir daaw ba ñu magal kay doon nañu wut portrait waaye ginnaaw ñu indi ko portrait kan waaye soxna bi waaw ñu ne moom mooy leen kii soxna kan soxna mi ne doo ñoo xawanuloo moom soxna mi ne daal waaye moom boo ko xoolee xam na kii du soxna kan ndax kenn jotu ko woon xamee loolu moom kan sëñu man waaw xajat kooku mu xàmme ma ko bi muy def booba xamaguma dara boobu maa ngi naan moom ma tudd nag moom ne xaddi jëf naa moom laa waaye deftol muslim o wotimo e fambal jante mum ma buggollo minmo ɗe fanda ko ɗerade ɗum ni moom lañ la jàppe waɗolde xam naa ko ñun dal dañuy jàpp ne yow yaa ko ñàkk waaye ñun ñun ñàkk waaw maa ko ñàkk wala dëgg maa ko ñàkk nag mi def de man war na maa war a toll ci dali jàng o man donen la dona toll ci dal lu bare sowu ko lu bari kay ñetti weer la ko jiitu damaa xamut waaye yàggul de ñu bukka weer la xanaa daanaka teewuñu weer man defe naa ñoo bokk weer sax bi c'est-à-dire que vraiment dugg sama ñu bokk mu ñëw ah andi nii xamoon bu muy dikk xamoon naa ne day ñibbi sama def si mu bëgg lu dul moom Moustapha ne ko waaw mu day toogal foofu yow rek ñu ne ñu woo yow ak gerte nga toog yow si door a yónnee nga de woo leen nag mu ñëw fekk moom itam mu ne nee leen ñu war a ñëw ñëpp nañ ñëw fekk ma fi sax si man du ma fi jógee rek sax dina ci àdduna bis suñ ko dencee ba noonu nag laa fi jógee dellu de def koy sax damaa mënta bañ a dellu de nekkoon ci rek laay toog fas ba li ko dal daal Cheikh Moustapha Moussa man maa dellu na soxna Khady Diagne waaw. dañ yàlla na la yàlla fay ci sa dara jay bàjjen boobu soxna Khady Diatou Mbacke nag mi ngi ñuy nettali ba tey ci biir waxtaan wi di ñu xamal ne soxna Aminta Kandi Boussa mi waajuru soxna Khady Diatou Mbacke bi mu xëyee ba yëg ne doomam ja génn àdduna ci seet si gum seet si woon magam soxna Aminta Kandi Boussa nag ginnaaw bu mu ñëwee nag ci cheikh mamadul moustapha mbàkke mi ngi koy xamal ne man duutuma dellu gede damay toog fii nag ci yow bali dal xadijatu mii dal ma muy ma génne àdduna ci say loxo cheikh mamadul moustapha mbàkke nag di ko xamal ne soxna aminta kandi bu so delluwaatal gede toog fa nag di xaar sama ndigal ndax xadijatu mii dem ak man mii fi toog ñun ñëpp nag yaa ñu boole yilifa ndax la fi nekkoon ba nëga ni nag jóge fii jatu sa moom la waaye man mii di cheikh mamadul moustapha mbàkke itam nag sa moom la histoire boobu nag moo amoon nag bëccëgu keroog te soxna xadijatu mbàkke mii bintu cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke nettali ñu ko soxna Xadijatu Mbacke nag mi ngi génn àdduna bisub dibéer fukki fan ak juróom benn ci weer wi nag di rakkaat ji gàmmu ci atum 1364 ci gàddaay gi dibéer fukki fan ak juróom benn ci weer wi nag di rakkaat ji gàmmu ci atum 1364 ci gàddaay gi dëppoog muy dimanche avril 1945 avril ci bayti ci seet si gum seet si woon magam Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke nag ci la génne àdduna ci bayti Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke nag moo sàkku nag ñu fanaanal ko bayti ba asamaan 1967 mu dem woolu ju nag waa Gede nag di leen xamal na nag soxna Xadijatu Mbàkke nag génn na àdduna sàkku itim nag ci rakkam Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ngir mu jullee nag rakkam jooju nag di soxna Xadijatu Mbàkke Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nag mu jullee soxna Xadijatu Mbàkke ñu jébbal ko boroomam ci armeer yu mag yi ci teewaayu nag mbooleem murid yi nag Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke itim nag moo sàkku woon ci murid yi nag ak fépp fuñ man di nekk nag ñu ñëw gunge si nag doomu Seexul Xadiim bi moo tax soo delloo ci marché bi ko magam way di soxna Maymunatu Mbàkke bintu Seexul ñu bokk seexul xadim ak soxna Aminta Kandi Bousso soxna Maymunatu Mbàkke nag ma ngay jooy rakkam ji nag di soxna Xadijatu Mbàkke ci marché bu mu ko defal ndax ma ngay wax ne bisub dibéer ba di fukki fa ak juróom benn ci weer wi nag di rakkaat ji gàmmu la dem seeti nag rakkam ji sëriñ Sohaybu Mbàkke dénk ko boppam ñëw nag ci magam Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke génn fa àdduna ñu teewlu marché bi ko magam defal soxna Maymunatu Mbàkke bismillaahi ma def tey ay bayit ci mbirum bintu xadimi rasulillahi moo gis ba lay bi moo soxla doomam woo ko kenn yëgul diisoowul ak kenn moo sañ wax ji lee biire jumaada luulaa bi yowmal ahdi fukki fan ak juróom yu teg benn bis lay woote tey waare guddig di béer ga la woo mbokkam ma sayiduna sëriñ Sohaybu la wax mbootam ya moo waare leeral mbirum addunaam baayam yoral ko mbirum alaaxiram bàyyiwul sax bor bu nuy seere daarul qudus la ko baayam teeru ñëpp taxaw Cheikh Moustapha moo ko waajal jox ko ay yére Cheikh Moustapha nee ko yaakaar Bamba képp na dem Cheikh Falli loo ko dugal néegam ba muy réere sell baatin rafet zahir mu jëm ga rafet bay baaka soxla mu dem firdawsi lay jaare kii sant rekk ci war yàlla nan ko yàgg defal ay ñaan mu bokk ak magam yaag bàyye moo waare nday xidi jàppal bay di muy hidaaya ci sa taalu bi bay bu waaroo waaru bay waare mook magam jooju nag di cheikh mamadul moustapha mbàkke ñaari weer ak fukki fan ak juróom nag lañ rawante ndax kii fukki fan ak juróom benn ci weer wi nag di rakkaat ji gàmmu la génn àdduna cheikh mamadou moustapha mbàkke nag mi ngi génn àdduna ñetti fani baraxlu kon ñaari weer la ak fukki fan loolee ay xalifaam nag nii la tëdde moom soxna xadijatu mbàkke taawam ba di taawu sëriñ Hasan Buso ba di sëriñ Ahmadu Buso moo ko njëkk a wuut nag ci ba ci ñaareelu xalifa soxna xadijatu mbàkke mooy doomam ji nag di soxna Ayda Buso moo fi nekk nag ci 1988 ba nëgë ni ñi ngi koy ñaanal nag moom soxna Ayda Buso ak mbooleem ñu mu séqal soxna xadijatu mbàkke ak kii di sëriñ Hasan Buso suñ borom guddal seenu fan te yokk seenu wér soxna xadijatu mbàkke nag am na nag ab bis nag buñ koy moo ànd ak nag ay doomam ak mbooleem ñum séqal soxna xadijatu mbàkke ngir nag ñuy fàttaliku seen waajur wi nag di soxna xadijatu mbàkke bintu seexul xadiim màggal gi itam nag màggalug bëccëg la màggal gi itam nag amul bis fixe nag ci at mi njaboot gi nag dañ ciy waxtaan rek ba juboo bu buñ ci waxtaanee ba juboo nag jàppal ko bis nag di ci fàttaliku nag doomu seexul xadiim ba di soxna xadijatu mbàkke suñ boroom nag man ñoo taas nag ci barkeem te fam tëdd nag suñ boroom yokk ay leeram nag ci darajay waajuram seexul xadiim bisub màggalug soxna xadi googu soxna doomam sëriñ Abdou Lahad Mbacke Fadiama nag la ko dénk muy jëwriñu màggal gi ñuy ñaan ci doomu seexul xadim ba ci darajay këm bëggoon fonkoon ko lool di magam mu mamadul moustapha mbakke yàlla nañu ko suñ borom fayal te yokk ay leeram te guddal nag fanu njabootam gim fi bàyyi moo xam doom ba ci ay sët defal yiw ak barke nag ay turandoom lii di jafe-jafe réew mi itam yàlla na ko suñ boroom saafara ci darajay xadijatu Mbacke amiin xadijatu Mbacke amiin xadijatu Mbacke amiin xadijatu Mbacke amiin